te li ñu nemmeeku ci tournée bi mooy organisation yi d'abord ba ñu ñëwee wan nañ seen mbégte wan ñu seen kontante rapport yi nga aussi tàmbale ngeen ko territoriale bi ndax gouverneur yi ñooy def suivi bi rapport yu mucc ayib la ndax daanaka ñu ngi à 80 de taux de paiement ci euh, moo xam financement bi la à travers les mutuelles isolées wala subvention yi nga xam c'est des mandats qui sont payables au niveau de la poste maintenant comme nous l'avons waxee toujours ci jëf du ñàkk dinañ quelques manquements wala quelques difficultés yooyu aussi day que nous ndax nous donc dinañu xool su fekkee ne mën nañ ko corriger ci ta si tàng-tàng bi ñu corriger ko su fekkee ne aussi loo xam ne dañ koy améliorer ci beneen phase ñu def ko mais li wóor mooy lu baax ak lu yegg ci ñëpp lañ ci jublu woon ndax président de la république bi mu taxawalee plan de résilience économique et sociale def ci junniy milliards bëgg na ku taxaw nit ñi loolu aussi moo ñu war kon euh, buñ koy def aussi dañuy déglu ñëpp ñooñu nga xam ne nee nañ am na tolof tolof dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax xool ni ñu koy amélioré.